du ñu tayle suñu bopp ci kenn ku dul yàlla tëggale nag ay jaam lañu daañu am soxla daañu am bëgg-bëgg mais suñu bëgg-bëgg yàlla lañ koy jëkk a diis di ca wax ak moom di ko ñaan eh, su ko defee monsieur le président sa waxin rafet na man kontaan naa trop sa kàddu ni nga waxee eh, dal gi tey gi ak suñu doom yi nga àndal muy sa jabar maa ko tudd Youssou Kounté maa ko tudd ki topp ci maa ko tudd ndax Pape Faye ci sëriñ bi la nekkoon Wali fay góor a papam di suñu xarit di suñu soppe Pape di suñu doom di suñu xarit di suñu soppe ku baax di ku di ku di ku yàlla baaxal mu am itam dal ak tey ba Mansour Abdoul Aziz Dabakh di suñu rakk ñu tudde ko Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour Cheikh Ahmed Tidiane mi moo topp ci moom Mansour jël ko taf ko ci boppam ndax Mansour itam ku bëgg yàlla li muy nawe nawe nawe dama naan Mansour rabbaani yi ku ku bëgg yàlla nga noonu ku ñeme jàmm yàlla nga noonu nekk nañu keer ngeen baal ma du du sawar ci wax wala wane sama bopp ne maa kiyee sama rakk kii guddi day julli ba suba Mansour sii dabba te du ko feeñal moo ko daan wax boobu dama ko mujjoon tuddale ci yow ñu bokk appartement fekk bu ñu waree jógee ma fekk si ma dama kër gu baax jaay sama lenn di costume jaay sama yére pour héberger leen ndax sama dañu di man may ñoom ak Assane Fall Mansour Ndiaye Hakoda Papa Sarr tabarakallahu kooku ci Mansour Dabbaax ànd ak Papa Faye dimbali ko lool ci éducation dimbali ko lool ci wàll yëpp kon bokk monsieur la président fii say waajur nga fi fekk say soppe nga fi fekk duñu la fakkatal mukk ndax yàlla sant ñu ko ci kenn tasaamaxu ci alxaaj Maalik ci xutba xutbatu fi ma baynakum min alxuquq yusaamixkum allah ngal la yéen ngal la yéen ngal la yéen na di jéem jéggalante ci seeni duggante ay xaq rekk nekk jo bu leen ko sàggane gaaw leen libéré seen bopp nangeen ngeen baalonte baalante su ko defee yàlla am fu mu dëgg ci waxin man leen jéggal ñeen ñëpp unzuru ila jazaakum min a wa ramda ak xutba ba yàgg na yàlla na su ko defee nag bi damay tëjee sama wax monsieur le président sëriñ bi kontaan na bég na bu baax a baax ndax euh, doomam moo ñëw fekk si ko te xawma lu mu tul wax ak ku mu am sañ-sañu wax ak te du ko wax lé lu mu gis na rafet na dina la ko wax te su ko waxee fàtte na ko yàllaa ko ñor juba ko ñor dëgg ko ñor amul dara lu mu xëccoo kenn ci réew mi waaye fu ko dëgg daf jotee dana ne teg taxaw wax ko kam ko seqal continuer di dem man loolu laa xam ci moom daf ma yar ca ba ma dee ndaw euh, li li ñu naan dinaa la woon biddeewu bëccëg <laughs> moom moon na ma am na bés mu jaar man ci tool yi fii <laughs> ci lu ma defoon <laughs> ah. keroog xool na ma bët yu xonq ak yeneen ak yeneen moom sama soppe la sama soppe la sama mag la sama xarit la jël papaam Abdoulaye da baax nag teg ko ci ko bopp papaam itam jël ko àla jàpp def ko ci biir xolam wax naa leen dégg ne leen sama papa ndekkee man duma taawam man je suis né waaye sama papa taawam moo ma ci waxul li nafsihi jëme ci boppam téete di rab bi xool bu mu defar jox yàlla xadab sharahu bégal na ko bésub tey moom sëñ Babacar ay wax de mawlaahu ki mu amul ku dul moom ci wéeruwaay sukkandiku ak yaakaar xurrata ayn yi koo xam ne yaakaar te ñu ngi koy ñaan su dundee ah, dana jaar feñ maam bi jaar ak bàyyi dana ko jëm comme talaayal kattanam ka ma ci jëkk a dimbali mooy sëñ Babacar Mansour sama mag la sama xarit la sama soppe toppatoo na ma ni ngi defal sama jikko wax naa ko ba tey wax naa ko Paris seen salle ba wax naa ko fii wax naa ko fa léegi rek sama rakk ji bi ma koy jàngal alxuraan fii ci Tiwaawan ci kër Serigne Baye la nekk Cheikh Ahmed Tidiane Sy ancien ambassadeur yàgg lool ci affaires étrangères nekk na ambassadeur Arabie Saoudite nekk na ambassadeur euh, Qatar Doha nekk na Maroc bu nekk ci daare kër gi kër sëñ ah, bi ci jàng ah amiral Abu Dhabi yow ba tey rek ci daara ji la génne tigaar yi ñëpp ma ci kër sëñ ba kër Mansour sëñ ba jox ñu këram ñu nekk fa yaatal ñu fa te booba ni ma ko waxee léegi maa ngi sama 15 yàgg nekk nag sama protecteur yàgg ma bëgg soo fi soree daa dem ba sa xol yëngu te buggul yooyu moom lépp lu ñuy joxe jëme joxoñ jëme ci moom daf koy moytu lu mu lu mu yàgg-yàgg ndax dafa xam yàlla nag bii wax naa ko ci zawif loolu bugg ko chapitre boobu dama koy tëj waaye mu di maaxi ñas ah, di xaritam ñoo nekk na woon ca kër gu jëkk bi ci jamono Nasser di fa jàng ñoom ñëpp ñoom Papa ñoom ñëpp ñu bëgg sëriñ bi sopp ko def ko seen kilifa diñ ko ko def yàlla ko def yooyu passé tey suñu ñëwee ba yàlla teg ko yéen fii mu tegu moom gisu ci bopp sañu ko yàlla la ciy gis moom la ciy sañu ko sañu ko ko ndax moom ko yàlla ko moom waaye moom la ko def tey mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm Zeynabu jërëjëf man ba may xam sa papa yàgg na boobu sëñ Babacar a ngi dund kurdi yu gay ak grand big grand big moo daan indil sëñ Babacar ay reeram mu jóge ci soxna umu xayri borom waañ wi ak ñaari capteur mais fii ci tool daara ju nekk feeb sëñ bi sëriñ bi wax na sëriñ bi kontaan na bég na bu mbég di mën a dale ñun ñëpp nañ ko xool xool xorma moo fi El Hadj Malick moo fi sëriñ Babacar Turandoo moo fi bàyyi fi des Cheikh Hadj Mansour Abdoul Aziz Pape Habib akada sëriñ bi mi ngi lay du la du ci ñaan yow itam ni nga toggee ka toggale kàddu yi nga wax man kontaan naa trop bi ma tey laa ma sa tooga yu waaye kontaan naa ci ni nga waxee ñu ngi nuyu soxna si suñu sët ñu ngi nuyu ñi nga àndal ñëpp di leen ziara di nuyu di baalu di nuyu Mansour Jamil suñu doom di nuyu Habib Mahamadul Mansour di nuyu Abdul Fattah ah, moom ah, ah Cheikh Ahmed Tidiane Mahamadul Mansour naam Cheikh Ahmed Tidiane Mahamadul Mansour di nuyu Abdul Hamid Seydi Abdoul Aziz Al Amin ak mboolem njabootu Mouhamadul Moustapha Al Amin naam waaw ndax ak Cheikh Ahmad Tijaan Al Amin mi ngi ne ma jàkkaarloo ñi fi nekk ñëpp ñi fi nekk ñëpp waaw su ko defee daal wax ju daal ku duggaat xam nga la ñu war a beneen na ngoog beneen na ngoog waaye da doon am lu mu doon rëbb benn janax kenn ñaari janax ñaari janax yeneen ñëw mu naan feneen a ngoog da raw ko far asalaamaaleykum yàlla na fi yàlla dool dolli jàmm lu jar a ñaan la àdduna yëngu na problème yi bari na Sénégal itam neexatul googa neex sañ waxikat yi dañ ci bari sañ wax kek nag ku ko topp daa dugg ci geewaal yi am na lu bari soo ko mënul faj ndax jomm nga ko te te bàyyi nga yàlla xel kurus a ngi fi yaa bas xadoo ya ngi fi ak yi ci sa sun sa tas jaru fi hëpp waaye ñu neen damay siqal benn tur di ko def rek lu ma ci xam ma dégg naa ñu di ko waxtaan ñu jékki toj sama ko ne ma hëpp ku naay Abdoulaye ku neexoon lu ma ko doon wax mu ne ma nee na ma ne kii man dama loree sama bopp président jërëjëf suñu doom suñu sët eh, suñu doom jërëjëf mboolem ñi nga àndal jërëjëf yal na yàlla doo den sàmm ci turu kilifa gi bi lañ ko waxee waaye Tiwaawan yëpp nag moom moo leen moo leen wutu leen loola nuyoo bi fedd di cofeel gi ak ak doomoo gi nga nekk doom ci doomoo la di la yàlla bàyyi yàlla di la yàlla ñaanal yàlla hada wa billahi ومن هو إذن إن شاء الله تعالى يرعون السلام يمين إن شاء الحاج مالك سيمالك نيروال